ñëwal denc sa xaalis ci sa compte GT Bank nga mun a am wërsëg gañe gañmaa yu duuf mun ngaa gañe moto bu bees tàkk Toyota Yaris wala seti toogu bu rafet bu ànd ak jamono moto motobike bu bees tàkk li ngay def daal mooy denca lu weesu ñaar téeméer junni dalasi ci sa compte GT Bank soo amul loolu mun ngaa denca li nga am ci sa compte GT Bank ngir gañe yeneen gañmaa am solo su ma gaañi su ma leen waxee denca sa xaalis ak GT Bank lu neex la <laughs> xam naa si dara te nag maa ngi lay yëgal ni ngay gën a dencee sa xaalis ci GT Bank sa wërsat di gën a yokku GT Bank Save ay sarta lam Citibank. Wouldn't you rather bank with us?